coow li du firnde lu dul ñun dañu tardé mais nag wax dëgg yàlla tey fi àddina bi tollu jaadu na ñu xam ne léegi nag yàlla yaatal na suñu xam-xam ci science. charia tey fii mu ne nii wax dëgg yàlla dafa war a jëfandikoo astronomie charia tey ku ko bëgg a doxal ci àddina bi ci weer danga war a jëfandikoo astronomie. waxuma nga sukkandiku ci bil kulliya sa lépp déedéet mais. dañ ko war a jël ñu dollandikoo ko boole ko texte yi ndax nag am na lu ñu yàlla xamal ci weer lu ñu xamul woon junni at ci ginnaaw fi xam-xamu science tollu tey ci weer tollu fa woon te yàlla ubbi na xam-xam ci àddina bi ci wàllu astronomie nit ñi dañu maîtriser weer ba nga xam yow ni ngay fii dem ba Dakar mbaa ba Tamba miin yoon yi noonu lañ xamee yoon yi ci weer weeg asamaan loolu yàlla def na ci science waaw àddina bu yeggee foofu kay nag mais xéewal googu dañ ko war a jëriñoo foog ñu boole sharia bi ak science bi pour ñu am solution ci weeru ko te loolu ba léegi tooguñu ñu waxtaan ci ba léegi ñu ngi toll rek ci débat wu nañ woorandoo nañ warindoo benn su Makka wooree nañ woor bu Mali wooree nañ woor waaw ñun yàlla dénk nañu ay boroomi xam-xam ci wàllu sharia ñu jàng ba géeju ci xam li yonent bi wax lépp ci wàllu weer dénkuñu ay borom xam-xamu science ñoo xam ne ay astronome lañu jàng ko xam ko géeju ci ne ci réew mi demuñu fenn ñu ngi fii toog mbokk mii ñuy dégg ci wàllu astronomie maram kayre lañ koy xaw ma mais ku am astronome bu toll noonu ñu di ko dégg fu ne ci àddina bi te mënuñu fexe ba commission séntu weer yi nga xam ne wax dëgg yàlla amuñu légitimité loolu ñëpp xam nañ ko dañuy defar ni ay commission rek mais bariwul solo mais mën nañu fexe ba ñu tëggaat commission yi boole ko benn xëcc leen ñoom ñu dugal leen fi xoolal ku mel ni docteur Gaye docteur Abdoulaye Gaye ku yéemale ci wàllu astronomie mais ba léegi mu ngi mënuñoo jëriñoo xam-xamam parce que jàpp nañ ne waruñu ko boole ci li ñuy def dañ ko war a boole nag foog ñu boole ko ci benn plateau ñu toog dem seeti kilifa yi nga xam ne ñoo am légitimité ci diini ji loolu foog ñu xam ko fii xalifa yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci tarixa yi ñoo am légitimité ci jullit loolu la yàlla def ku nekk am nga ku la doy comme nit ñi nag xalifa yi lañu wóolu waaye nañu orienté commission yi dem waxtaan ak ñoom ne leen mbir maa ñun sonn nañ ñaar fukki at yàlla ñi ngi ci weer wi ñu wóorloo Sénégal yi mënu leen a wóoriloo parce que doyuñu leen yéen yéen leen doy comme yéen leen doy xool leen nu ngeen yaakaar ne commission bi bu ko tëddee mu baax ñooñu tracé commission yi su ko defee mu nekk benn mais fukki commission ak juróom-ñett du am benn njëriñ ñooñu tamit woo astronomie ne leen andi leen li ngeen jàng ci wàllu science ñu boole ñu xam ban heure la ñuy séentoog nan la ñuy séentoog fan lañ ko war a séentoo ak fan la weer wi toll ci àddina loolu bu ñu ko defoon léegi solution am bu solution amee ci réew mi nag waaw ñu jéem koo yaatal. dem seeti suñu mbokku Mali seeti waa Mauritanie seeti waa Côte d'Ivoire waa Guinée waa Ghana jeune bi yëpp ne leen léegi nag dañu bëgg ah ñun de lii lañ am comme solution yéen nan ngeen di séentoo ndax mënuñu boole mbir mi léegi ba nga xam ne ñun Afrique sowu jant bi yëpp dinañ mën di worandoo du warindoo solution man yaakaar naa ne bu loolu amul dañ fi nekk di wër garab gi rek bëggee naa dina te loolu nag wax dëgg yàlla taxul woon yàlla àndina fi ñu am ay solution loolu moo taxoon mu na ñu fi yàlla ñu ko yàlla yombalal yàlla may ñu kooru jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah